Sidia di la jaajëfal encore une fois si opportunité bi ñu may toogaat ak yow jàkkaarloog internet yi auditeurs yi waxtaan ci thème bo xamantene vraiment lu am solo la pour aduna bi yëpp. insuffisance rénale nek na avant tout feebar bu éprouvant pour les gens qui l'ont ak seen famille yëpp entourage parce que soins yu mu laaj c'est c'est c'est assez coûteux quand même balaa ñuy dugg di ko forom fàcce baax na ñu xam lan mooy rein ben organe la bo xam c'est père ñaar borom bi logé ko fi ñuy wax euh, si fosse lombaire rein rôle buñ ko bëggee expliquer nit ñu bari dinañu xalaat né peut-être moy nettoyer deret rôle épurateur du rein nit ñi rôle bobu lañu gëna xam mais ça va au-delà de ça ñu ñëw ci rek rein effectivement euh deret bi impurité yi si nekk yëpp pour mu mën a génn nit ki mën tour ndox mu génn il faut que rein bi segg ko rein bi bu ko seggee day jaar si ay tuyaux yu ñuy wax les uretères uretères yooyu da koy yóbbu jëmale ko si si kii bi euh, naq bi naq bi di ko di ko duy di ko duy bu demee ba fees nit ki am envie tuur ndox dem ci toilette yi daal di tuur ndox salte yi génn impurité yi génn loolu moom mooy rôle roño bi nit ñi gën a xam mais ça va au-delà de ça comme je rein dafa day defar benn ferñeent bu ñuy wax vitamine D bu koy synthétiser vitamine D boobu day permettre yow calcium bi ngay jëlee si lekk yi si ñam yi sa yaram mën ko utiliser donc ngay jël calcium te amuloo vitamine D euh, nu mu ni ko sa yaram war a mën a du mën a donc rein nga gis ne am na beneen rôle bu bokkul ak li segg deret bi am rôle aussi muy defar deret via benn hormone bu ñuy wax. Euh, érythropoétine érythropoétine euh, moy permettre nit ki mëna synthétiser défar nu ñuy wax euh, deret bo xolé sa athlète yi bu ñëk ba doon nañ ko utiliser pour sen deret gëna a bëri pour ñu mëna a mëna def ay performance ba légui dañ ko bolé si liste substance yi nga xamantene bu ñu gisé nga koy utiliser dinañ ne la yow ah da dopé wu ba disqualifié donc érythropoétine bobu dafa am solo té ci rien lay jóge mu am benen rôle aussi pour defar lui ñuy wax renin renin bobu bokk na ci li di réguler sa pression artérielle xam nga def nañ fi ay émission yu bëri di wax si walu diabète si walu tension tension bu waxon naa ne bokk na si cause yi nga xamante ne cause secondaire yi nga xamante ne mën na tension mën na ci juddu muy problème mu rein donc rein via renin boobu muy defar dafay réguler sa tension artérielle bu amee problème mu rein rek yomb na nga développer feebar bu ñuy wax hypertension artérielle donc nga gis ne roñu dafa bëri njëriñ bu amee problème rek benn bu ci nekk si njëriñ yooyu mën na sooxe ba indi nit ki lu ñuy wax doye di roñu donc buñ ko tënkee rek insuffisance rénale mooy roño boo xam ne mënatul remplir ay fonction ba jural nit ki des signes yoo xam ne médecin bu ko xoolee gis ne lii ah roño bi xaw na doyee di tuuti. effectivement causes yi bëri na bëri na lool euh, biñ ci commencé rek te nga xam ne ñëpp d'accord que ne nañ que ne moo gën a bëri muy diabète muy hypertension artérielle surtout l'hypertension artérielle def nañ ay émission ci lool yaakaar naa def ma ci benn boo xamante ne tudduma insuffisance rénale parce que ñaar ñooñu ñoo dàq joxe insuffisance rénale donc ki nga xam ne daf ko am war na vigilant lool di surveiller ay roñom boo jëlee fukki malade juróom ñaar yi ba ci juróom ñett yi ñi amee insuffisance rénale tension wala diabète moo leen ko indi donc nga xam ne bëri na te mooy cause bii gën a fréquent am na yeneen cause yu mel ni polycystose rénale polycystose rénale benn genre feebar la boo xam ne ndono la day bëri si famille nga xam ne rein bi day mel ni dafa am ay bëtt bëtt yu si nekk nga xam ne yomb na pour ñoom rein bi xaw a doyee di tuuti mu am beneen cause bu boo xamante ne euh, femme bi nga xamante ne wasin na am ay complications ñu koy wax hémorragie du postpartum des fois buñ la teelul won roño bi dina sonn sonn sonn bo xamné ne bu yàggee mu doyee di def insuffisance rénale amna yenen yeneen cause yoo euh, infection yi moo koy def yu melni infection virus hépatite B virus hépatite C wala infection parasitaire telle que paludisme hmm, wala bilharziose bi ñu daan dégg hmm, nga xamné ne wàññeeku na quand même mu ngi fi yooyu yëpp mën na indi doye di roño mu am euh, dernier volet bo xamante c'est en rapport avec les médicaments muy médicament traditionnel parce que nee naa la médicament traditionnel kenn du tëb ne baaxul kenn du tëb ne baaxul waaye problème dosage la ñu am problème posologie la ñu am xam nga euh, ki nga xam ne defar na garabam dugal ko ci pharmacie garab boobu avant muy nekk si pharmacie bi ñi ñi di ko jëfandikoo c'est dix ans d'étude dañ koy jàng saytu ko xool njariñ bu muy indi nit ki waaye tamit lor yooyu muy indi nit ki il faut ñu identifier ko loolu nag mënoo ko am ci médicament traditionnel mënoo tëb suba teel rek buddi say reen commencé baxal naan te xamoo lu muy jur si sa yaram loolu rek moom moo tax donc bokk na si lii gën a mën a indi insuffisance rénale mooy médicament traditionnel yooyu ñu utiliser te xamuñu noonu la nan lañ ko war a utiliser ainsi c'est pareil pour les médicaments euh, les faux médicaments ñi nga xam ne dañ koy jaay médicament de la rue fa ne si médicament tubaab bi la bokk te fekk au fait y a rien dedans c'est des c'est de faux médicaments boo ko naanee sax mën a toxique pour ton rein mu am beneen volet boo xam c'est toujours en rapport avec les médicaments oui prescripteur yi hmm? médecin ça donne prescrire vous maîtrisez maîtriser lien de posologie surtout que ñun domaine bi ñuy liggéey muy wàllu mag hmm? nga xam ne déjà rogné dafay fragile fragiles jëm de mac euh, ñu naan début de filtration glomérulaire de dafay wàññeeku donc médicament yu bari yi nga xamné mom dañ owé les médicaments néphrotoxiques médecin bi bala mu koy bind war na xoolaat adapté waat posologie bi avant mu koy jot nit ki autant de causes yoo xamante ne mën nañ ko lim te mu mën indi insuffisance rénale comme ni nga ko waxee rek mën nga dund ak feebar bi te doo ko yëg l'importance de nit ki def dépistage dépistage nag mënuñu tëb ñëpp dépister leen parce que nit ki mooy xool rek par rapport à sa propre volonté di def ay bilan annuel di xool rayon médecins yi am nañ ay moyens yu xarañ yoo xam na mën nañ jéem

waaye grain yu ngande yi nga xam ne ay xeer la ak yooyu du mënul traverser tami bi rein noonu la mel protéine waru ko mën a traverser parce que protéine dafa rëy léegi nag nit ki bu demee nag bu médecin bi di gis si biir saw yi protéine yooyu sa veut dire que protéines yi traversé nañ rein bi ça veut rein bi am na problème loolu la dépistage bi si loolu lay accès recherche protéines yooyu si biir saw yi soit bande la wala def lu ñuy woowee microalbuminurie yi duñ dugg si détails yi pour gàttal rek nañ jàpp ne dépistage plus nga def ko doo plus nga mën muccu ci ci si si d'autant plus que personne yi nga xamante ni lañu owé les personnes à haut risque cardiovasculaire wala les personnes qui ont trop de risque trop de facteurs de risque Personne yoy ñom ci bopam ñoo wara gëna mëna mëna def dépistage fréquent ñu ci mel ni ñi amé diabète ñi amé tension ñi amé yenn feebar euh, cardiovasculaire dans son dans son ensemble ñooñu dañu war a doon cible boo xamante ne très souvent war nañ di def dépistage bu weesoo ñooñu nit nag am nga droit chaque année nga dem gis sa médecin ne ko ah man dama bëggoon def bilan mu xoolal la daal di lay seetaaleel sa roño lu si mën ci am mu wax la balaa feebar bi di gën a la tout à fait bëri na ay traitement yu ñu mën a proposer mais li am solo rek mooy ça dépend si stade bu ñu gis feebar bi bu dee stade la boo xam ne c'est pas tellement avancé noonu xëy na ce sera lu ñuy oowee des mesures hygiéno-diététiques moytul lii lekkal lii del defee nii waaye tamit ay garab mën na ci topp yoo xamante ne boo ko jëlee maladie rénale boobu mën na régresser dina am fu muy toll itam ni nga ko waxee rek jalis jalis nag boo ko tuddee rek ñu si ëpp seen àdduna tukki ah docteur man day jalis moom dama kaa ragal li ma gën a loon mooy nga jox ma ay garab bëgguma jalis

impureté yi day dem ci ben poche buñ koy remettre mu diko changer peut-être 3 fois 4 fois pendant la journée du soxla muy dem hôpital tout temps xeyna bu démé hôpital tamit ay une fois lay doon par mois wala yu démé non bu dé hémodialyse nag nit ki il faut muy dem hôpital presque 3 fois dans la semaine bu démé dañ koy dafa am benn machine bu ñuy branché si sidit muy nettoyer direct bi di ko si lu tolloo 4 waxtu lolou nak war na ko def ñetti yoon dans la semaine à vie ba keroog muy am peut-être roño buñ ko buñ ko jox ak yu demee donc yooyu ay traitement yu ñu proposé j'emboîte le pas sur ce que je viens de dire Moi, transplantation rénale loolu aussi dafa bokk ci traitement yi nga xamante ne mën définitivement cette maladie rénale transplantation transplantation rénale du lenn nous dul am nga rein yu fonctionné wul nga am sa benn mbokk boo xamante seeni reins yi dañu nuroo si bépp fànn du nuróo rek si bokk groupe sanguin yooyu mais am na yeneen yu gën a xóot yu si nekk yoo xamante ni il faut ngeen bokk ko pour greffe boobu mën a am sa yaram mën ko nangu xam nga sa yaram tey buñ si dugalee lu si bokkul dina am ay soldats yoo xam ne ñu ngi sa yaram dañuy dem xeex loolu génnee ko nekk yow bokkoo fi waaye dinañ def de sorte que buñ lay defal euh, greffe rénale boobu am na garab bu ñu lay joxaale yoo xam ne entre guillemets dana gëlëmal soldat yooyu ba du ñu mën a jàpp ne lii bokkul si si si si yow ba duñ ko dem di attaqué di ko di ko di ko faagaagal loolooy greffe rénale malheureusement nag amaguñ ko Sénégal mais ak gouvernement bi état bi effort yi ñuy def gëm naa ne dinañ dinañ yeggi ji foofu. Mm. incha allah lu am solo Sidiya muy fagaru fagaru li ñuy wax moo gën faju waaye sénégalais moo war a am habitude. di dem hôpital di saytu sa bopp même bu fekkente ne dara dalu la waaye yaakaar nañ que ne boo demee hôpital rek ñu nga naan médecin yi dañ may gisal feebar waaw mais yow bu ñu la gisalul feebar feebar bi nekk sa yaram di law tollu yenn niveau yaa condamné sa bopp donc ñun ñoo war a am culture di def dépistage dépistage bi nee naa la bëri nañu ay moyens yoo xam ne boo demee hôpital war nañ la ko mën a defal pour gis li nga xamante ne mooy insuffisance rénale wala maladie rénale débutante beneen bi ci topp mooy. tout ce qui est mesure hygiénique manam une façon lekkin une façon nekkin dafa am solo gis nga Sénégal li fi ne si diabète li fi ne tension té néwon na la fukki nit yo gis yu am de euh ñaar ba ñetti diabète ak tension mo leen koy yobé. donc ñu wara xolaat sunu suñu xorom si des na gi na hein? sucre si nañ ko di qui lu sel. suñ ko défé rek war mën war nañ mën a mucc si feebar boobu beneen bi si topp mooy di am culture def sport sport moom amul benn feebar boo xam ne dañ naan bul def sport hmm? nit ki war na am culture di def sport parce que sport li mu am si ay vertu bëri na hmm? pour tënk ça diminue le risque cardiovasculaire euh, beneen bi may terminer rek encore une fois message la bu may lancer à à à à l'encontre des des des des des des des pharmaciens des médecins et des gens friand de de de médicaments nañu moytu médicaments yi nga c'est de faux médicaments les médicaments de la rue nañ si attention parce que lu moment mën a le lu mu mën si le constat est là Benen bi mooy les médicaments traditionnels encore une fois médecine traditionnelle médecine moderne ñun bañ ñu benn yoon lu tradi praticien yi am si xam-xam parce que xam-xam yàlla moo ko moom moo koy joxe waaye nag xam-xam bu wóor bu sel, bu ñu encadré bu ñëpp nangu les médicaments traditionnels, médicament traditionnel le seul problème c'est la posologie war nañ xoolaat bu baax pourquoi pas former ça ay professeur en médecine traditionnelle yoo xam ne ñooy jox diplôme tradipraticien praticien. yooyu war nañ a xalaat weccoo parce que les médicament traditionnel di yàq si roño bëri na jéggi Donc on donc war nañ xoolaat volet boobu xoolaat itam sunu de docteurs surtout surtout par rapport aux personnes âgées seeni rein dafa fragile bu ñu leen di bindal garab nañuy xool toujours euh, posologie bi adapté ko à la fonction rénale bu bu màgget bi ñu mën ko bindal ay garab avec sécurité te duñ si am benn jiixi jaax nañu am culture dépistage bu la dara dalul sa na ngeen di dem docteur di saytu seen yaram moo ñu mën a muccloo si feebar yu bëri parce que léegi tollootuñu sa si feebar yi nga xamante ne dañ naan les maladies transmissibles mais c'est les maladies non transmissibles nga xam ne dañuy évoluer à bas bruit nit ki mën na ko am ay années muy yàq di indi ay complications te du ko yëg donc nañu am culture di def dépistage te moytu garab boo xamante ne jël nga ko te docteur bindalu la ko.